yëglekaay yi ak taskatu xabaar yi pour tënkal leen solos waxtaan bi nga xam ne séq nañ ko ak boroom réew mi te Jamra doon sàkku ci moom ñu wàllu suñu ay compatriotes yoo xam ne dañu nekkoon ay victimes de trafiquants de migrants waaye nag balaa ma sori xanaa damay fàttali rek nekk victime yooyu ginnaaw bi ñu leen identifier recensé leen ñu nekk cinquante quatre cinquante trois victimes ma bëgg a fàttali ne rek ñoom ci seen bopp ñoo sàkku ci Jamra ñu dox seen diggante ak état pour état mën leen a wàllu. je le précise ñoom ñoo sàkku ci Jamra ñu dox seen diggante ak état état Sénégal mën leen a wàllu li tax ma wax loolu mënuma ko ñàkk bañ a wax c'est à l'endroit de des mauvaises langues yi naan waaw Jamra daal c'est des médiateurs autoproclamés ban médiateur autoproclamé médiation coono kese la ndax suñu xaalis moo ciy dem constitution partie civile suñu alal la ciy dem ut avocat suñu alal la ciy dem te dossier médiation yi fi jaar yëpp amu ci benn muy euh, ama Sénégal muy euh, ancien combattant de la guerre du Golfe muy Sénélec amul benn boo xam ni victime yi Jamra amul lu mu yëkkati di leen ko dimbale te ñun mënuñu ko duñu banque amuñu subvention état amuñu dara kon nag médiation coono kese la ñoo ñuy wax loolu bu ñu mënee teggil médiation bi di ko def ñoom dañ leen di sant yàlla rek voilà kon euh, ñoom ñoo sàpp ci Jamra ñu taxawu leen et d'ailleurs c'est l'occasion ñu rendre hommage suñu avocat maître Moussa Sarr ndax yàlla dogal na bi suñu avocat attitré bi Latif constitué woon depuis 1999 di maître Khassim Touré yàlla na ko yàlla yërëm bi mu génnee àdduna maître Moussa Sarr vraiment dafa ñëw bénévolement je le précise bien laaju ñu dërëm daal di assuré la continuité ba dossier bi ñu ko mujjee soumettre mooy dossier mafia. organisation Miss Sénégal bi nga xam ne ay doomu jàmbur jëlee nañ ci ay ëmb yu amul bàyyi ba noppi nga toog naan ku ñu ci ëmbal yow la neex maanaam apologie du viol plainte boobu moom moo ñu koy déposé ci procureur ñu ngi koy gërëm maître Moussa Sarr dërëm laa ju ñu ko nag je le précise si wàllu médiation itam occasion la ci ndam bi ñu yàlla mujjee defal le mercredi 22 juin ñu sargal ci Mass Thiam mooy le directeur général de l'unité de coordination euh, pour le traitement des déchets solides euh, kenn ci ay technicien am ku ñuy wax Pape caam moo waroon ñëw tey waaye mënul dafa am ngànt jëmm ji toog fii nu mu tuddati Habib Gueye moo ko représenté li tax may may may gërëm Mass Thiam mooy pour la première fois Jamra di def médiation en faveur de travailleurs yoo xam ne ñoo tooñ ndax ba ma ko waxee Mass Thiam ba Mass Thiam d'accord pour ñu waxtaanee ko daf leen woo le mercredi 22 juin ca bureau fii ci kër góor gi ñu toog en famille waxante dëgg ma ne travailleurs yi ngeen ñu dara rajee leen sanga bu tedd bi Seydina amee dafa ne sa mbokk jullit bu tooñee war nga ko jàppale bu tooñul buñ ko tooñee itam war nga ko jàppale ñu ne bon bu ñu ko tooñee ñu jàppale ko c'est xel mën na ko dégg waaye bu tooñee nag sanga bu tedd ne bu tooñee da koy jàppale mais sa njaalbeen nga danga koy woo nee ko yaa tooñ alors lool la Jamra def le 22 foofu à la direction de UCG ñu ne liggéeykat yi yéen a tooñ parce que bu n'avez pas le droit de d'abandonner vos postes de travail boo leen amee lu leen naqari vous avez des délégués et autres mais waru leen jóg abandonner le travail bref Pape Thiam dawal yërmande réintégré na 40 travailleurs qui sont restés 3 mois sans salaire. Euh, Mass Thiam. ginnaaw bi yàlla defee leen ndam Jamra ci médiation boobu gratuitement lañ ko def avocat mooy naan liggéeykat bi waaw naa la dimbali de mais bu sottee lu ma ciy am mais réew ma leen ci de seen métier la c'est leur gagne-pain waaye Jamra et je prends tous tous tous les bénéficiaires de nos médiations à témoin depuis 1998 ak Sotrac ba fii Jamra daf lay naan danaa la jàppale fii sabilillah voilà ñun euh, dañ ciy mottali suñu jaamu yàlla rek. ñu ngi gërëm kon donc euh, mastiam Thiam directeur UCG et vous le savez depuis le mois de mai assemblée nationale dafa voté une loi UCG dafa changer de statut léegi société nationale la ñu di ko wax SONA SONAGED société nationale euh, de gestion des déchets solides dafa changer de statut alors euh, Mass def na acte bu rafet quarante travailleurs yu jaaxle woon xamuñu fu ñu jëm. mu dawal yërmande réintégré leen yamul ca loola moo tax dama ne woon danaa ko ubbee conférence bi parce que ñun neexaluñu benn DG ne benn ministre ku ci def lu baax dañuy toog ne la ba àdduna yëpp xam ne def nga lu baax ku ci def naka naka suñu nooñ nag du ñu laxas waaye du ñu yëg ne sax yaa ngi dund alors Mass Thiam yamul ci intégré leen xam nga lu ma def daf leen fay le salaire du mois de juin te liggéeyuñ ko kooku duñ ko gërëm ay pères de famille yoo xam ne ñu ngi war a jànkoonteeg avec le problème de la tabaski ñu tooñ la ñetti weer liggéeyuñu nga réintégré leen fay leen weer boo xam ne liggéeyuñu ko kon maas yàlla yàlla guddal sa fan te dëgëral sa taxawaay alors ces précisions étant faites